jang ha pulan mau tamat level 5 dek aja dak kamu nyata damai dan melayak kan mana mau bawa lagi mana mau tak nemu itu tengah ada nggak kul tanya ini sebay lah cibi cuma cuma cuma tak walum bay pudur mau tak membet kamu jah cowi jah lalu kat ada kata damai dek mana mau tidur nak sudah aku guru malado tamat sebay tamat sebay cibi sebay lagi, cibi boy sama itu ay bëgg a pël de day amal dóor wax ma nga léegi rek may dóoraati ginnaaw boy samay eh, eh, eh. eh taxaw boy bu ñaaree nga xam de demal damay xaar ba nga toog ma rek yow va de temps va de temps dem ku jekki rek ngoot teg suuf ku rek suuf ak 18 waa Mbour tey man damaa bëggoon ñu waxtaan ndax bakkan jàmm la bëgg ah ya. mhm. bu ko am de moom moom la bëgg wax dëgg yàlla man xam nga dama laa bëgg damaa bëgg ñu dawal suñu diggante jàmm waaw ndax ay yóbbuwuma fenn taman jigéen la damaa bëgg rek nga dimbali ma ngir yàlla takkaat ñu sëy sëy bu rafet ma sëyal la sëy bu rafet ndax dara am nañ doom boo xam màgg na te chaque jour mu laaj ma la waaye waxuma ko ni sa papa mi ngi ci dëkk bi man euh yow xam nga ni man bañu ma ndax koy andal mu la say dom mënoo tëb tëb na ko ba ñaaw te mami teranga ju nek dafa nga sey bu nek nek and nañ wax ko yàlla te lepp sama bànneex rek ci farata ak suñu mais sama problème ak yow deug deug ba tax ma baye la te mëntuma and yow ñëmeetuma mooy da nga ak ci trop trop trop trop trop yow mami fu ma nee ba nga ma mujjee xët ba léegi xët bi mu mujjé xët ba ma lay génn seen kër bu fi nga xew faté wu ñëw na bu fi sama ginnaw gi dama dem ni koy gàjj ndax dara ju dee la ma def ndax yow da nga def ni da nga da nga niw kàttan te yàlla wul ci jigeen yi nga xamni dañu oyef oyof loxo loolu da ko wara a nangu sa tank bi nga ma ba fajar bi nga ko téggul mënumaa juk loolu du yoon jigeen nak buy sey day oyef bax nga trop man nga sey wax dëgg waaye moom moom moom bu ne gànn ga lay na rek nga doon gaynde gi jigéen sama kaw loolu daal laa muntu mun moom dong moo tax man ñemeetuma la. waaw léegi léegi dégg naa la ndax loolu lépp fiir la rek xeetu fiir la rek waaye nit ak bëgg loo ko tere ma bako yow loo bëgg suba ba ngoon dinaa ci xar sama tànk dugal lépp loo xam ne bañ ngaa ko dinaa ko bàyyi xanaa neex na ndax bu dul dara sax war naa mën a nekk sa wet ndax dama laa nam carrément. xam nga. ku ne xam ne doo ànd ak nit ba fii bañ. dëgg la waaw te yooyu wax dëgg yàlla ku la xool xam ne soofoo waaye nag da ngaa xaw a naqari deret waaw loolu daal moo la yàq leneen. nag may baal nag ndax nit ak bëgg mënu koo bañ wéet naa trop sama doom soxla la man soxla naa du dëgg. waaw bàyyi lépp mu set loo bëgg dinaa ci dox loo tere dinaa ko bàyyi dinaa la sëyal sëy bu rafet ndax xam nga ni soxla naa la namm naa la trop. ah na mbir mi kay la moom. ndax man sëy yu baax ak sëy yu jaag-jaag ak sëy yooyu ngay def guddi moom gën naa ko gis yu raw yooyu la fi ne nga ni yu bees tàq yu a gis ci am eh, eh, xoolu may nga ne yow laa ko yéen waaye hmm? boo ko defee doo ko rëccu yooyu nga fa cuuraay ak lemmale yonent bi gën a garaaw yooyu nga fa mu yow nag ma daan dàmpe moom ba tey ko bi daan bés bu neex yu raw yooyu nga fa daal de defal li ma la wax say bi am nga am yu yu bees tàq lépp lu ma jàqoon ci sa yaram dinaa ko defal man de ki ma dëkkal fii ndaw soof sàkk gi mu sàkk ki dëkk fii ci kër gi ñun hmm. kooku rek jar na maa génn kër gi dem si waat moom daal mi ngi fii xees pecc di ciig ji di dara dara bu la romb du la saf tus yow nag moom xam ne dama laa sant kon nga def xam nga xam nga gaynde bu jigéen moom du bàyyi rëbb ah ah kontaan naa si yow de te namm naa ko nag te dinaa ñëw

daay jàpp nga gàmpee de. yow koy waxal. ah damaa gis lu ma jaaxal. yow loolu moo la jaaxal fii. kin coro béro. si booy xam nga lu ma bëgg xam xam nga da ñëw mode ba temps yi gis nañu wax nga da ngay wax xuma maa la gën a réew maa la gën a doon. bés tombé rek. <laughs> non de laa la tontu danga maa danga ma tontu la. yow li xamoo ko yow yow yow yow jàng yow tu n'as pas fait les bancs. xamoo dara génn fi naan ay gëstu di wax n'importe quoi. ban fin ban la lay teg wax ko. Mr Mary star be star combre feet you feet my body as tuuti a réeme be <laughs> ah, parce que tey ma tekki la ko tey li ma la nii sa jabar dafa ñëwaat. bëgg a dellu si waat dégg naa lépp fee la amee woon daaw bëgg a ñëwaat ci yow bëgg nga delluwaat parce que dafa la namm am na lu mu namm ci yow léegi loo si gis ay nga dellu nga dellu waaw xam nga waaye asan boobu lu mu wayoon lu mu wax maanaam ñaan ñu bëggante wax coo lu baax mooy li gën xam nga jamono ji ku wayru mbëggeel bokkoo mais c'est vrai am na waykat mu naan toppati mbëggeelu xale toppatee di daw di daw mel ni mbëggeelu xale eh, toppate gu ne ngay daw xale la da ngay doon xale rek mais jox ma benn tax bu neex bu jël topp ca di daw mel ni mbëggeelu xale xale xale wët da dama miir eh, mbëggeelu xale xale la <laughs> eh, xale lu dem entraîné ji. yow looy entraîné yow yow ban façon genre góor la yow. ah ban genre góor la. man ligue des champions laa ah. ko bari. ligue des champions. waaw sa cuuraay màkk yi moom ngay génne yow. beneen cuuraay dañoo nga ah. bu gën a ndaw. 22 yow booy ci koñ bi ñoom Cheikh ñoom Bilal. boo yooyu booy pro yi war a signé fii bu ñu la gisee dina indi problème. yee man signé naa bu yàgg. sa yàq yaboo yi war a koo génne. ne ko fang ci digg jaxaaw gii naan da ngay signé signé woo xam ma bëgg nga ñu sa jaaraat ni si biir wut loo sol dégg bu génn nii. yow yow yow yow père yow père yow da yëpp wala lan non man da xam lan laay entraîné da nga xam lan lan moo tax may dem. Ah, voilà nit da nga da loolu la affaire bi loolu la. surtout surtout da pare. Ah, voilà ngay tax di ma laaj ay lii ak lii. man xaw di entraîné. ay fu def parce que dama dégg temps yi parce que tey damaa dégg korog fii benn waay ñëw fi ma fekk sa noonu amoo kàttanu fecc waaw léegi nag man may wuti kàttan yooyu pour mën a defal fecc waaw loolu moom jaar waaw waaw loolu bu ne kàttanu fecc Pas waaw loolu jaar na léegi da ngay dindi courage yi nga laal ci ay plastique daal mën a dem parce que mën ngaa génn booy yaakaar dañu ah ba tax li moo gën a neex a dal kawas ji kawas arbitre la ah dafay duur rek booy nga ni jéego ah sama peng la. waaw yaa ngi xaar defee mbuub waaw parce que man xam naa lépp xam naa li tax ngeen fii def man nag loolu dool doole jooju nag. laay <laughs> mooy bul tëb sama kala. waaw loolu yëpp tamit nii. day day daa. père. waaw waaw àddina <laughs> dafa ndànk rotation rek mën ko def sa yële dam. waaw lu tere sa yële ci loolu. man sax booy amul may expliqué. mbuub. voilà. wax yow. kon yàgg naa fii de kon di ko sama coow rek sama booy boobu. kan la sama boobu du mel ni pion dem yi rek fi la ñëw lu ne def na ko jaar bi leen yore. gis nga waaw waaw. fii la jaar comme pion bu war a dugg dam fu ne mu koy ñoom ñoom mais yëpp mu loolu sax yow fi nga tombé nag sax waaw mais dara toog di la xaar rek am moom jot dugg ci biir di kii ak yooyu noonu comme ni ma wooye wooyu fit la mu ne naa ñëw mbaa jàmm la rek waaw mais yow man dama laa wax suñu mënuma jot lu ne sa téléphone. man nag euh, damaa bougé woon. waaw mais bi ma ñëwee sama doom bi liir na ko. waaw ne ma moo la sox mooy message bi nga bind noonu. waaw waaw moo tax ma ñëw nag. ah am nga passé. waaw waaw am naa xam nga yow man a yow ay waay la. Mm-hmm. te doon na si kon am jàmm. dëgg la waaw kon su ma nekk si benn projet dama la ko. projet waaw alhamdulilahi rabbil alamin sama gént gi na ko. projet da koo gént baax dama koo gént gént naa projet bu rëy. dafa am benn waajoo xam yaa ngi dégg yore xaalis bi bari mais xam nga moom lu mu dëgg moom daal vraiment lenn rek la problème fecc fecc waaw fecc rek ah moom daal nee na yóbbu gars yi Europe dina yóbbu si boîte yi ni fecc mu nuy jox xaalis bu bari moom moo ñuy fay nag direct moo ñuy fay direct waaw da ngay fecc fi nga taxu mu fay la jóoni jóoni nga dem jóoni jóoni nga dem ah te doon tey ay fecc yi bari lay doon fecc yi bari lay doon waaw léegi nag waaw donc man yàlla daal de sama pecc tax ko xarulu ma ci loolu. damay mhm. yàlla rek. kon dafay mhm. ñëw ma ma góorgóorlu naaw xam nga saa a jël. kan a jël. Pape Gade yow gën na ma ko. na ma day entraîné pour am mën a. fekk loolu nga sol goraas yoo xam ne 20 la ci kanam comme yëngal ko ay mbana. tiit naa ci moom de kii tiit naa ci moom kii sonn kii gëmul yàlla. aw na ñuy dem. waaw léegi nag xam nga loolu la ko tax a jóg. Mhm. ndax sa waay moom moo fi indi ba pare waa ji na ñetti fan ngi ne añu liim ok contrat bi si man la ko yàlla indi xam nga yàlla moom moom buy def boo xam ne waaw waaw léegi nag comme wàllum fecc moom xëy na gis naa ni yow def naa ne am nga ci xalaat yow kay man demeewuma si noonu aptu nga aptu nga léegi nga jox ma ay part de danse am bokk ak yow aptu nga aptu nga waaw léegi waaw part de weesuwul euh, comme ñun ay mag lan bul sonal sa bopp léegi booy ñu ngi sàjj ceebu jën ju tàpp nga jël jëbét bu dugg ci ceebu jën ji bu dugg ci baarambay ji téye ko ci ay kele ay kale yu sew cent mille lay fay par jour par jour cent mille weer bi xaalis bari na bari na ñun tekki nañ tekki nañ léegi jógal jógal waaw wecc mi nag bu ko waaxu bu ko góoxu waaw xam nga ñun man daanaka géwél laa parce que maa géwél la ñoo daan ànd. non yow kay daan naa la gis gis géew loolu tax ma woolu xam nga mag ñi paa yi ci koñ bi bëri nañu paa yi ci koñ bi bëri nañ mais ñu fi ñoom xamul loolu waaw waaw léegi nag waaw comme booy bi moom mooy nga ne mooy kan manager Wally moom waaw waaw waaw loolu la wax waaw moom day wax famille waali daal waali yi xale yi waali yi loolu la wax waaw léegi mën naa laa jàngal ay pas yu garaaw yu doy waar waaw boo ci feccee bu mu kuul waaw bu bu ñëwee mhm. nga wan ko ko léegi man da nga koy wanaale si samay mbir waaw waaw pour ñu jël voilà ñun ñaar ñu ànd def sélection bi bu ñu amee ñaar sax day génn première division waaw di gagné moonin di dugg ci koñ bi di yëngal you know waaw yes that's right léegi uh-huh. euh, dangay ngay ànd ak man taas mbakk ci tarata junni junni taj ta ah, jëlaata jëlaata noonu ci ginnaaw waaw voilà waaw ta <laughs> li waaju du ko ba moo yow mooy na neex na neex la jëlaatal taas mbakk ci taga caa gi mu jëm ta mais gis nga nag feccu mag dëgg lii la rek lii dafa normal waaw te doo am benn problème waaw lii la rek amul leneen. acca amul leneen. waaw waaw. waaw asalaamaaleykum. Eh, woote bi yàlla gën bu nit. star baa ngi nii. Eh, booy baa ngi nii kii mooy ménageur bi nga xam ne moom laay wax booy bii. mu kii moo tax ma jël fi ay pas de moo ni fay di moo ma jël. booy bii moo lay fay. Ah. waaw nag booy gannaaw ba yàlla yonent bi. Ah, yow mat nañ la ba ci fii. yow da ngay am problème eh eh, eh, eh déet déet wal mu ah ki dama fecculoo loy pas de ba sama ans yëpp di mit kan du juróomi deureum bu mo jox fen kat a ni eh ah, dafa juum bu yax sama projet boy bu lama père peer ah. père matière bokul tamit. waaw matière bokul bokkul defal dank rek taxawal taxawal mu yow ki kii yor projet bi. fen kat la yorul projet bi gat day duul tubayam ji di melni pikir serengu nga sol. père damaa jaawale. Eh, tey sa bi. damaa jaawale père andi pochette bi. am na ku may ndural. booy ki ngeen ndural sama yónni wu ci Serigne Kounda Mbacke damaa jaawale booy loolu lépp réglé wu ma ko. booy dóor damaa jaawale père. billaahi dóor ci booy jàpp naa bi alma maas bi. xaaral ma alma maas bi. damaa jaawale ak eh, père yow. Oh, booy yow waaye yow mën nga rëcc. waaw indi ko fi andil andil andil defal ndànk rek andil ngay jooy. Ah, oh, yow waaye kii boo damay damm de. waaw damay jël sa bakkan de. jox ko maas bi booy balaa mu lay rey maas bi taxawal nii. léegi doo dem kaay taxawal léegi doo dem. léegi doo dem wóor yow buy yaa ñàkk jom. yow sa moroom mu bàyyi ma mën laa jur ah nga fekk ma sama kër ba sama njaboot commencé woon ma cee mere. di ma loo ay pas de danse. lu ne defloo na ma ko yóbbu sama fukki junni nag boole eh! ci. non vraiment jaawale voilà yow de foofu nga juumee vraiment. boo waxaatee nga wax ma deful dëgg xoonam. noppi dégg nga li ma la wax. booy noppi doo tooy sa taw xay bi. dégg nga. tey yow yaay pan de danse bay bëgg a dee te li nekk fi yëpp da koy ñàkk. léegi yow loo bëgg ci moom. xam nga kóol bi. Ah, indi bi jëlal tuus bi waaw bi ñaari fan fecc naa a yumb. voilà léegi yow booy. Ah. len doom mooy mën a def ñu ah. bàyyi la. ñu bàyyi la waaw gis na fecc dafa mitti. torop fecc daa metti de. lu leer tu xam nga ko. ba pare nga fecc te booy booy naa fi booy bu bon ndax yow léegi nag da ngay fecc yow da ngay fecc da ngay fecc heure bu ma neex nga bàyyi. jëjërë rek gin gin. jëjërë rek gin gin. jëgin gi jë demal amul xool booy. feccal feccal. booy da ngay fecc ndax ma feccal. ah yow ma yow ma yow lay fecc yow. ah yow ma feccal laa wax feccal. yow ndax te dëgër sa gémmiñ. feccal jëjërë rek gin gin. jëjërë rek gin gin jëgin gi jë gin gin jë gin gi jë gin gi jëgin. et booy gin gi jë gin gi jëgin. gin gi jë gin gi jëgin gin gi jë gin gi jëgin gin gi jë gin gi jëgin gin gi jë gin gi jëgin That's what. di jël waa kaay kaay kaay kaay booy des nag ñoo ñoo kaay bi dañoo tëj buntu kër gi de kaay booy booy yow doo dem kaay kaay fii yëpp booy kaay kaay soo maree ma doyuloo satal ak ndox ngay naan ñëw taxaw daajoo ni daajoo ni fekk dama ni seen seen bi tekkee ko suñu yoon nëw ci yow yow ngay yow ku bëgg léegi jëlal racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk booy da ngay ànd ak man racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk amul booy xool bul arrière si dee waay avancé lu nday fii nga fecc li moo def jógal racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk booy defal naa defal naa jógal booy jógal booy jógal feccal racaa gi cëkk racaa gi cëkk racaa gi cëkk raja di dagu raja di dagu raja di dagu raja di dagu raja di dagu raja di dagu raja di dagu lagi lagi jual mi dagu eh eh eh der der mbu der sa kër la bakay dama ñewul ñewul dem ñewul do do day ci kër gi de ya, ya fi dul na ya ko do jappal jappal jappal jappal jappal jappal ngay bëgg dem iluma paré mu dé ci nga xam nga xoy mel yax yamoy bo xamé da amé cardiaque boy bi der jël am légui jël calpe bi nga fal do dem de ah alhamdulilah. laa ilaaha illa Allah dama fi duggatee rek mu rey. waaw jërëjëf waaw waaw jërëjëf. doom ra jërëjëf jërëjëf. maa doon jàng fekk rek baax na. waaw kay. waaw man ma suba.